ñu baree baree bare xam nañu ko ci réew mi ak ci bitim réew ngir jàngale yi am solo yi nga xam ni mi ngi koy def jëmale ko ci sëriñ bi ak téere yi nga xam ni mi ngi koy bindit jëmale ko ci mbindum sëriñ bi waaye di ko jàllale ci làkk bi nga xam ni moom la nàmpate mooy làkk wolof yàlla nag ci saa borom defal ak ubbiku ak ndam ci barke borom Tuubaa kon moom la ñuy jox kàddu gi mu Alaaji Jibi Sey bu ko defee mu ñëwul ci waxtaan wi Alaaji bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه wa xadimi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi diin anta raximu samadu raxmaanu almuminu almuhayminu almanaanu ikfil balaa wa jumlatal wabaayi wa sox ilal ahdaay kula daayi anta raximu samadu raxmaanu almuminu almuhayminu almanaanu ikfil balaa wa jumlatal wabaayi wa sox ilal ahdaay kula daayi taraximu samadu raxmaanu almuminul muhayminul manaanu ikfil balaa wa jumlatal wabaa'i wa suux ilal ahdaay kulla daay kon bokk jullit ñi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare di tàmbale suñuy kàddu ci ñaanal sëñ Muntaxa Basiiru Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko mbooleem naal boo xam ne naalal na ko yoon wi yàlla na ko yàlla defal tawféexu àggale ko te mu àggee ci ayam ci barke Seexul Xadiim di nuyu di ziyaare bu baax sëriñ Cheikh Fatma Mbàkke ñaanal ko moom it taxawaayam yokk yéeneem ci yoon wi ku ne gis na ko yëngu ci téere yeeg yaatal xam-xam macha allah. yàlla guddal fanam te wéral ko te mu koy def ci tuubaa fii ak fële ñu dëkkee ca Ndakaaru taxawaay yu ama am solo ba ci académie mi nan baag lépp rek di siyaara nag <clears throat> waa daara ji ñëpp te buñ tuddee jëwriñ Massène rek daanaka tudd nañ mbokku taalibe yëpp ziyaare waa daayira Tazawudu Sixaar ziyaare sama rakk ji nga xam ni moo ubbi waxtaan wi nag xam naa ne tënk lay doon rekk ci jaar-jaari sëriñ bi ak tey taalibe bu murit góorgóorlu gum war a góorgóorlu ba mbaaxu sëñ bi jeexital ci dundam jeexital ci ay jëfam jeexital ci nekkinam te loolu lépp lu koy jàppandal sëriñ bi jegeel nañu ko di leen ndokkeel nag ci bis bi ñaan suñu borom defal ñu tawféex ba ñu yàgg koo fekkee te di ko màggale ni ko sëñ bi digle ba nga xam ne lim ci diggee saa su nekk ñu ko ci am ci barkeem bisu mbégte la bisu bànneex la te ndigalu sëriñ bi la kon jamono lum xat-xat-xat ndigal moom warta xam xataayu jamono jëfe rekk sëñ Tuubaa dafa wax ci bayit ne laa taf al shay'an bi ghayri izni fal iznu shartun fi xabuli ni bul def dara te teguwul ci ndigal ah, dara la wax shay'an bul def dara dara te dugul ne ndigal mu teg ci ne ndigal mooy tax ñu nangu say mbir su ko defee nag màggal gi ndigalu Sëriñ Tuubaa la ci biir ndigal lii mën nañ ne sëñ Fallou moo ci yokk woote ko tuubaa fii te ba mu koy def boobu mooy sëñ ci kaw suuf kon ku yàlla defal tawféex nga matale yépp màggal ko ni nga ko war a màggalee defee ko tuubaa loolu tawféex ju réy la kon nag sant yàlla bu baax la ca des mooy sëriñ bi dafay kéemaanu suñ borom boo xam ne mën nañoo jàngee ci dundam muy sagu dër bu ñuul dër bu ñuul dañ ko yàgg noot lool dem ba xam-xam buñ ko waxee daanaka dañ koy njort ci der bu weex moo xam tubaab la wala nga ne naar bi te loolu mooy li feeñ boo seetloo yonent yi li ci ëpp mën nañ ñu weex lañ donte am nañu ñuul yenn ci boroom xam-xam dañuy wax ne yonent yàlla Moussa ku ñuul la woon am na ñu wax ne suñu maam Aadama sax ku ñuul la woon waaye xam-xam naka jekk dañ ko daan askanalee ku weex moo tax boo jàngee Masaalikul Jinaan di nga dégg Sëñ Tuubaa ne la bokk gu ma bokk ci nit ñu ñuul ñi bu mu tax nga bañ a jàpp sama téere bii ndax téere bi lépp lu nekk ci biir lu wér la fa kulluma fii saxiixun usbita fa xasini zann bii wa asbita Sëñ Tuubaa lépp lu nekk ci téere bi lu wér la na nga ci rafet njort te saxal ko waaye nag bokk gu ma bokk ci dër bu ñuul bum tax nga bañ koo jàpp ndax booba dañuy xeeb dër bu ñuul sëñ bi teg ci ne fa lay sa yujibu sawaadu jismi safaatal fatawa su al fahmi sëñ Tuubaa ne der bu ñuul taxul nit ki déggam ñaaw wala mu nekk ku dese te loolu sunu sag la te boo seetloo kiimaan gi ko yàlla may moom sëñ Tuubaa da cee bokk mooy boo seetloo seex bi ni mu jekkoo arab ba tëgg xasida yi nga xam ne kéemaanu suñ boroom la boo xam ne dafa koo feeñal ci sëriñ bi te làkk wi mu ko bindee mën nañu du làkk wi mu nàmp te boo xoolee sëriñ bi doxinam doo ci gis arab arab lu wala arabe dafa am identité boppam boo xam ne dafa dëppoo culture mu nekk lu jafe bëri na ñoo xam ne bi ñu génnee réew mi jàngi arab biñ dellu see daanaka da ngay yaakaar ay arab lañ te sëñ Abdoulaye daan na wax ne loo arab arab lu du tee arab bi di la xoolee bëtu puruñ puruñ rek nga mën a doon boo jàngee tubaab it loo tubaabe tubaabe tubaabe tubaab bi du la xool bëtu lu dul koo xam ne ab gurmet la kon doo tubaab tubaab lu ba doon tubaab doo arab arab lu ba doon arab doonal ki nga doon yow sëñ bi nag nii la dunde tubaab bi yàgg na ak moom jaxasoog moom waaye gis nga ko dara yi tubaab doo ko gis ci moom arab ni mu ko jekkoo ak lim ci yekk ci xam-xam dara yi doo ko gis ci moom mu fonk culture moo tax li mu woote boo seetloo saa senegal yi te mooy ñun ñi fi dëkkee dafa dëppook ñun ba ci suñ col ko suñuy waxin nga xam ne taalibe murit bu toogee fii di waxtaan ak yow làkk wi nga xam ne mooy suñu làkku réew muy làkk wolof dangay gis ni ko jekkoo xataa ñun ñi di ci yëngu ci wàllu wolof ak xamle muy mbootaay bu yaatoo yaatu tudd wax boo seetloo murit yi doole biñ ci am kiimaan la te li ko def mooy fonk seen bopp ndax boo sàgganee rek liñ naan mbatiit mooy culture dañuy xeex ci jamono dañuy xeex bari na xeetu yére yoo xam ne du suñu yére waaye dugg na ci réew mi su ko defee boo ko fàggoo xaalis ba nga cay def ci poosu keneen la jëm loolu ci perdre sa identité nga xam ne da ngay dem ba keneen ngay nuru nurulu te boo demee ba perdre sa culture kee lu mu la jaay lu bokk ci alalam da koy daal di jënd bu defaree film jox la nga seetaan bu defaree lekk jox la nga lekk bu defaree naan jox la nga naan fekk ne boo fonkee sa bopp dangay ngay fonk sa morom lim yor di la ko jaay moo lay gën la keneen di jaay mën nga ko xool ci màggal gi rek mën ngaa dugg ci boutique boo xam ne loo ci jënd dafa saf sàpp ak Sëñ Tuubaa moo xam mbaxana la moo xam maxtu la moo xam yére la moo xam dàll la moo xam téere la looy wutee xam-xam lépp lépp dafay delluwaat ci sëriñ bi xataa jamono niñ bëggee déglu loo xam ne lu leen di tànqal la muy du jëm ci wàllu misik nga xool xasida yi sëñ Tuubaa yi boo amee feebar boobu leen mën na la koo saafaraal te muy loo xam ne tagg yonent bi saa salaam la déglu bi nga koy déglu daf lay dolli yiw dolli la teraanga sa diggante ak sa borom kon jëmm jooju ku yàlla defal tawféex ngay taalibeem xencu aw yoonam a ah, war nañ ko wax jërëjëf te mu liggéey ko ci période boo xam ne bu jafe jafe jafe la ndax booba tubaab bi daa dugg ci réew mi am yéene assimilé ñu assimilé ñu mooy fexe ba nim bëgguñu bëgg doxe ko ñu doxe ko fexe ba nga perte sa làkk mu dugal école tëgg ay nit ñu ñuul ñoo xam ne dañuy ñuul ci kaw waaye weex tàll ci biir dara yi diine du nekk ci ñoom waaye ku mel ni sëñ Tuubaa nga xool nim liggéeyee ci loola yar njabootam yar ay dongoom nga xam ne tubaab bi dem na ba seetlu ne sëñ Tuubaa ku noppi ci moom mënul ci moom dara moom ba wax na ko bis ne ko gis naa ngay laaj ñaar fukk ak juróom-ñett ñu jox la jox la ba nga ne doy na man may laaj impôt mënumaa fexe ba jot ci sëñ Tuubaa ko da ngeen ne moom jëmm yi man ma moom li li li ci biir jëmm yi ma moom ruu yi loolu booy seet ba bisu yàlla tey bii looloy dox keroog am koy laaj ci tele bi naan lan moo tax murid yi gën a sawar ci joxe àddiya que fay seen lempo te ku seet lu gis ko impôt bi ki nga koy jox. du fa rek du fa lay tàmbalee. jëm yow man am boo dëkkee ci kër goo xat làmboo yar ak teggin a xol bu laab kër ga day mujj yaatu sëñ Tuubaa waxoon na ko sàmbala bi nee na ko maag yow xajowuñu woon Kajoor te tey ñoo bokk sama der bii yow nga dem ba ne tubaab bi kii maag moom mënuñoo bokk Kajoor jamonoy dox jamonoy dox ba yàgg sëñ Tuubaa ngeen bokk ab der sàllaaw xanaa kajoor a gën a yaatu ab der waaye xol xol mooy xat xol mooy xat xol nag boo ko raxasee ci lépp loo xam ne yàlla gërëmu ko gis nga boo bëggee dund gu teey dund gu sa borom gërëm dund goo xam ne bànneex kase la naqar du ci am laa balal sa xol ci lépp loo xam ne yàlla gërëmu ko waaye leneen loo def da ngay yokk kar mi xaraw rek karaw dañoo yaakaar ne ku am xaalis sa dund neex fekk am na koo xam ne xaalis bi muy wut mooy naqara dundam ca lañ koy sàcc di ko triande xelam du dal fu mu toog yaakaar ne boutique ba danañ ko toj xel mi liggéey rek xaalis a mën a def loolu nga ne soxna si taaru na xaaral ma fexe ba takk ko mu ñëw indaale ay benke ñenkeem yoo xam ne daanaka mooy doon sa feebaru àdduna yow oto bi mu ñëw ak ay paanam tukki Europe nangam ak nangam mooy sama rêve nga dem tukki Europe gis bopp sa bopp gi lijjanti kayit kon du foofa de fekk ne boo toogoon defar sa bopp defar sa xol amul kenn koo yéene safar daray rëy nekkul ci yow lépp looy jëf ak a wax da nga koy def ngir jëmmi suñu borom subhanahu wa taala sëñ Tuubaa lim jàngale ci téere ma gëstu ko dëppale sama dund su wax jotee loolu laay wax su jëf jotee loolu laay jëf su yéene jote itam loolu képp laay yéene gis nga dund gu tonowu fii la ne kooku doo rëf rëfi yàkkamti woo iñaane woo kenn lu waay am xam nga ne may ko boppam suñu sëriñ dañuy wax ne lépp looy iñaane waaye bu doon moo ko may boppam ëpp na loola te iñaan wedd ndogalu suñu borom la yàlla may nit oto nga iñaane ko ko daa mel ni yàllaa def nga bañ li yàlla def boo raxasoon sa xol nag ci kañaan lu waaye am dangay xam ne yàllaa ko may yàlla na ko jig rek yow li nga war a moom kenn mënu la koo xañ kenn mënta dox sa digganteeg li nga moom mu agsi ci yow kon looy iñaane doye looy soxore doye te yii boo ci saafara woo rek gis nga sa dund taw féex lay doom taw féex yii xajamal dund mooy jikko yu bon yooyu ñooy yàq dund nit yàq dundam ba nga gis sax ku xaru di nga gis koo xam ne day toll foo xam ne ci xol bu feebar ci yaakaar naa ne xaru rek ku mën a faj wala beru di jooy moo ñu ne kañaan bàkkaar la boo xam dalay lakk fii lakk la fa jëm boo liggéey maanaam fii du neex day metti li ngay iñaane waaj yàlla da koy yokkal bu dee xam-xam la muy yokk bu dee daraja la muy yokk bu dee xaalis la muy yokk loo ci mën alma man xasadani laa yan sarim ba bisul mën ñu xibun laa yan xarim Sëñ Tuubaa nee na méttitu ki may iñaane du dagg mbégte ki nga xam ne daf may daf ma sopp Sëñ Tuubaa nee na ba faw la parce que ay mbiram day gën di jolli di gën di jëm kanam jamono bi nga yaakaaree ne àdduna ci la nekke ci crise ba màggal Tuubaa dañ koy fomb màggal goo koy dàq ci màggal yi yow soxol nu muy def fërfëri rek ba yow mal xiyaam rek noonu lay def parce que daraam jëmul ginnaaw léppam kanam la jëm sëñ Moussa Ka nee woon na Bàmba nee woon na samay mbir ci duniyaa lu mujj ñëw ëpp la wéy ci mbóot yi te baytu sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa wax ne darajat yi taalu walay sa tan xafit wa man naxa minal war a xaf di xufit darajat yi mooy sama daraja taalu dafay yëkkatiku walay sa tan xafit du wàcc mukk wa man mi minal war a xaf di képp koo xam ne ci mbindee fii jublu na wàcce ma xufit moom la ñuy wàccee moom mooy jëm suuf te ko xool gis ko sëñ Tuubaa lan na ma jëm ginnaaw ku ko gis du daraam boo seetloo ñett yi mu fi bàyyi woon mu nekk yum yittewoo lool mébét ko lool yéene ko lool te yàlla jël ko njëkk muy sotti bi ci jiitu mooy aj màkka wa jàngee raa yi rek zur man wa in bi ka daaru wa xaala min dunihi sahlun wa laa yam annaka yam na annaka buudul min ziyaaratihi innal muhibba liman yuhibbu zawaaru yàlla gàllankoor huwa lazi iqa jismi an ziyaaratihi yàlla gàllankoor ko ca loola te ak ah, ko bëggoon waaye doomam defal na ko ba ca desaat mooy jumaa ji jumaay jumaay tubaa ji mën nga ne ci saayir sëñ tubaa tegu ko bët ndax bi muy dem booba jumaa ji sotteegul 27 la dem jumaa ji kan lañ ko ubbi 63 waaye lu sëñ bi yéene woon la bu doon yoon wi day dellu ginnaaw lim yéene du sotti tabax nañ njaareem nag ci kanamam ba mu sotti waaye dane woon jumaa ji mébét Tuubaa ju njaarim day mel ni waañ ci moom tey booy ñëw Touba xoolal njaarim ak Touba rek njaarim mag ñee ko tabax waaye ci ginnaaw ga sëñ Modou Moustapha taxawaay bi mu ci am sëñ Fall taxawaay bi mu ci am xoolal ginnaaw gi ñoom liñ liggéeyal sëñ Touba ci jumaa nga xool jumaa ji doom yi liggéey ak bi bi fekkee muy njaarim sottiwul loolu jëm kanam a tax sët yi tey xoola Masaalikul Jinaan ca Ndakaaru ak yeneen ak yeneen loolu mooy luy luy jëm kanam ba ca desaat mooy université bii lu sëñ bi mébatoon la lu sëñ bi mébatoon ba bind ko ci ci bëyit yéen ñëpp yéen a koy dégg bil Moustapha lii banaa su madrasatan bi yazulu aza wal jëhul wal kamadu daara joo xam ne dafay dàq lor di dàq réer ak njàqare nekkuñ ci bu ko romb di nga xam ne sëñ bi kéemaanu suñ boroom la te ba mu koy bind yàgg na jamonoy dox jamonoy dox jamonoy dox ba lépp sotti te boo xoolee loo ci gis rek lu lëkkaloog diine la lu lëkkaloog tiituru xaadimu rasuul bi mu doon li liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam nazaani minal wara baaxil xadim àllamu bi anni abdul xadim rek fu mu mën a ne liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp lay def loolu nag sas la ci ñun taalibe yi damay faral wax toujours ne yéem sëñ bi baax na lool sëñ tubaa amul morom baax na lool jërëjëfe sëñ tubaa baax na lool te mënta ñàkk léegi yow sa dund ndax yaa ngi xaar sëñ bi ne la jërëjëf fu ne ni ngi fay taxaw sëñ bi amul moroom sëñ bi jërëjëf sañ bi jërëjëf waaye njàmbaas ci nag dundee noo xam ne bés boo faatoo sëñ Tuubaa na la yow it sama taalibe bii jërëjëf wane nga ma ci sa kàddu wane nga ma ci sa jëf wane nga ma ci sa dundin lépp dëppook loo xam ne gërëm naa ko te daan na ko wax mosuma def luy rusloo sama taalibe waaye bëgguma sama taalibe di def lu may rusloo loolu sas la mais xeeti wax yooyu dafay néew luñ koy dégg li ci ëpp dañuy yéemuloo rek sëñ bee jaar fii moo fi moo nagam dëgg la baax na waaye nag ñun nu ñuy def ba jëriñu ci sëñ bi nu ñuy def ba nekk ay taalibe yoo xam ne ku ñëw xool naw suñu sëriñ te bañ a bokk ci ñi nga xam ne ku leen xool boo xefee xepp sëñ bi te kooku tooñ na sëñ Tuubaa am na ci ñoo xam ne sëñ Tuubaa da leen tëkku nee na képp koo xam ne daa jógoon ngir ñëw si ci man ngir jëriñu mu daje kenn ci ndong yi koo xam ne wax na wala mu def lu tax koo koy dëpp sëñ Tuubaa na kooku yow man xam balaa péncam yàllaa tas dana ñu àtte maag moom sëñ bi jëriñ nit ñee ko taxoon a jóg walaaw yansuru nii wal xalqu tatbaaw nii fil bari wal baxri za naf in bila dararin muy aji njariñ jox amul daray lool kon jëriñ nit ñee ko taxu jóg te taalibe mën naa doxee noo xam ne am ko ragal a ñëw ragal a ñëw te yow la xool gisul sëñ bi xamul sëñ bi bëri na ku dingal sëñ tubaa taalibe la xool rek waaw taalibe boobu bu feeñalee nu sëñ tubaa melul waxee nu sëñ tubaa diglewul ba tax gaa yi ragal a doon murit kooku tooñ na sëñ tubaa tooñ na boppam te sëñ bi lum mu yor lu raglu lu yor lu dul tawféex amul waaye boo yeewul nag yittewoo xam-xam mën ngaa doxe noo xam ne mooy jur loola loo jël rek jàpp ne bokk na ci sëñ bi bokk na ci yoon fekk ne ak seexlu woon am na yoo xam ne boo dee taalibe bëgg am gërëmal sëñ tubaa danga koy seexlu boo ko seexluwul rek mooy sa dégg-dégg ak sa gisin des na xam nga dof mooy tiim mbalit di lekk te xelam du tey waaye nit piir bu tiimee mbalit xalaatu ko sax waaye boo wéradee nag mën ngaa tiim mbalit te sa xel du teey te su boobaa ku la xool te xamul ne mbalit nga tiim day yaakaar ne li ngay lu baax la fekk ne yow yaa feebar loolu day am pas-pas bu feebar ak taalibe goo xam ne ni nga ko déggee baaxut mën naa tax nga cakaay yi caaxaan yi mooy yàlla jàpp ne yàqul dara ci sa murit mooy dof bi tiim ñam woo xam ne ci mbalit bi la ko fore te xelam tooyu teeyut daa wéra di moo tax dangay faral di wax ne feebar dana gaar nit ba bu lekkee ceebu jën bu ko saf dara waaye moom moo feebar nag ki wér moom bu ko lekkee dana xam ne ceeb lam daan saf mi ngi koy saf ba léegi waaye yow yaay feebar ba boo ko lekkee day mel ni lekkoo dara naan sama gémmiñ daa lewet feebara la gaar su ko defee nag pas-pas mat a yittewoo taalibe gu dëggu mat a yittewoo lu ko gën a doon tawféex ci kaw suuf amul yàlla nañ ko yàlla bokk defal ñun ñëpp def ñu ay dëggi-dëggi taalibe yoo xam ne dañuy seexlu lu bon waaw sëñ Tuubaa loolu la tuddee woon seex benn waaye buy jàmbat seexagul sëñ bi ne ko loo ma defal lu jar seex mu ne ko mbàkkee kenn defalu ko xanaa yaa koy def ci sa ceebare rek mu ne ko jege si ma jàngal la ci dara ne ko saa boo xasee seexlu lu bon kenn gënatulaa seex seexlu lu bon rek lu yàlla gërëmul seexlul lu yàlla gërëm jeexal ci sa li kese la kon yàlla nañ yàlla defal tawféex yàgg fekkee bis bi sëñ bi moo ci digle woon bernde damay faral di wax ne màggal lépp lu ñu ci def lu dul berndeel jaami yàlla yi loolu moo waroon a nekk suñu yëf moom murit da ciy sax dañuy julli dañuy jàng xasida dañuy jàng alxuraan yooyu daf ñoo war bis bu ne waaye bisu màggal nag berndeel la waaye bernde nag jëmm yi bernde ruuy yi moo tax xasida yeeg alxuraan jeeg julli yeeg nangam nangam lépp ngir santale sëriñ bi borom ndax moo ci joxe woon ndigal dana woon képp koo xam ne sama mbég mooy sa mbég bis bi saa bu agsee nag ma ci sant la yàlla sëñ Tuubaa àgg na ci wax sax ne képp ku ma gane si woon su doon man maa la gane si lépp loo may defal defal ma ko ci sama bis bi wax ne àjjana amul jant buy wane ne tey mooy bis sàngam waaye nee na suñ borom bu bisu màggal jotee suñ borom dana ko xam soppi àjjana ci xéewal ak i bernde ba ku nekk biir àjjana di nga xam ne bis ni ki la woon màggal Tuubaa waaw kon bis bu màgg la bu mat a fonk la sëñ Tuubaa daa bari ay coono ay jaar-jaar yu mu jaar ba xëy nag ci njaareem wax mag ñi ne leen bis bii bis la bu samay nattu daan dolleeku fukki fan a juróom-ñett ci weeru safar di dolleeku di dellooku bis ñi ki tey nag sama boroom xamal na ma ne nattu dootul dolleeku ay xéewal ay dolleeku ba faw ku ma ciy bégle rek ku ma ciy santale rek xéewal yooyu du la kon yàlla nañ ko yàgg fekkee at yu bare bare bare bare di ko màggale ni ko sëñ